asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk ñu ñëwaat ak yéen ci waxtaan wu gàtt rek jëm ci réew mi ñu bokk ak euh, diine ji ñu bokk ak euh, valeur yi ñu bokk ñu bëggoon a sànnante ay kàddu yu gàtt rek ci xutba boobu nga xam ne moom ngeen dégg imam grande mosquée de Dakar def ko ñeenti at ci ginnaaw addu woon nañ ci benn vidéo boo xam ni tamit noonu la woon mu doon traité nit ñi naan ay yëfi réewande la ñu nekkee lañ ca waxoon ku ko bëgg a dégg boo ko tàppee ci internet bi duñ ko gis kon il n'est pas à son coup jëkkewul lii mu mel na mercenariat moom lu dox la ci réew mi mooy kaay defal ma nii kaay defal ma nee te nam lay defloo dara baaxu ca nit ñi nag dofuñu ki nga xam ne moom ngay defal yëf yi ki tax nga koy def bu la ko santeeg bu la ko santul su fekkee ne nit la moom daf lay jéppi ndax ay sale besogne laa gis foofu man di yëkkati kenn di xas ña ca des boo xasee ña ca des te yëkkati woo yaa ngi yaa ngi xaste ci koo xam ne kii daanaka sa moroomum doom la rawatina fukki weer a ko fi dese matu ko te yow su fekkee ne yàlla may na la gudd fan gu ànd ak wér te téléwoo da ngay continuer di nekk ci poste boobu nga xam ni bu dee ci lislaam la poste ëpp ko dara daraja kon waruloo ko woon a jënde dara ba mu jaral la nga toog di def sa xutba di xaste ak di sànni traak ak a tànc nit ñi man nag duma ko déglu comme ñu bare bare nag ci réew mii ñoo xam ne ñii non seulement duñ ma yokk xam-xam waaye dañuy dagg sama xol moo tax seeni vidéo ki seeni wax duma ci dugg li may booleeg moom nag mooy lii ma dal tey ñu yónnee ma vidéo ma dégg kàddu yi ay laaj nag dana ci génn jëm ci moom lu ñàkk dana ci tontu dégg naa ko muy wax naan xutba euh, ci biir xutbaam waxi korite gi du moom dong it sax am na ñeneen ñu ci wax waaye man boobu de man rafetlu ma ko wax dëgg yàlla fii réew mi tolloo li am daal mooy ajjuma nga wari yow la engage gis naa ko lu ma doy wari point nga ware yow la engagé gis naa lu ma doy wari naa point waaye nekk fa di jéem a lux mbóot keneen ka la ko taxa a la ko teree wari loolu man jàpp naa ne du lu rafet fii réew mi toll ndax problème mu woor ak wari yaakaar naa ne wax nañ ci ba àgg foo xam ne fii nag doy ne sëkk kenn ku ne nga nga jàpp ca la nga jàpp te bàyyi sa morom parce que comme kenn mënatu ci fekk sa morom kenn amul humilité fekk si sa morom kenn amul amul tamit kóolute ci sa moroom wax jee bari rek réew mi jullit ñi amul kenn ku wóolu sa morom fii ci réew mi kon nag nañ mayente jàmm ku ne bàyyi sa moroom mu def la dal xelam suñu borom tabaraka wa taala mooy àtte waaye nekk imaam toog di xutba ci keneen la mu def ak la mu deful yow li nga def bu la doyee keneen ko noonu la def ba yëfam doy ko ku nekk na jàpp ci la la mu nekk bëgg naa ko tamit mu tàmbalee ci wax yi la bi ñuy tàmbali ci julli ak bi ñuy ñàkk tàmbalee ci julli kii tàmbalee alhamdulilah rabbil alamin ci tàmbalee bismillahi rahmaani rahim mu wax ne ñenn ñi dañuy kàbbar ne tekk ab biir man bokkuma ci ñooñu man te yaakaar naa ne am naa ci moroom nee na tekki jeeju tekki wax bismillahi rahmaani ci suuf déedéet am na ci biir ngiru Malik ñàkkul waaye li wér daal ci Malik li mu saxal mooy bismillahi doo ko tàmbalee alhamdulilahi rabbil alamin ngay tàmbalee mu àgg ba ci basmala muy meraleen ku ko waxul ak xar mu amul génn wax jooju rafetul wax ju rafetul te nee képp koo xam ne kii yaa ngi julli te waxoo basmala teguloo ko fenn kon moos jàpp naa ne bu bëggoon topp ci ginnaaw kuy wax alhamdulilahi rabbil alamin du sotti kon de dem màkka nit day maandu waxu basmala tàmbalee ci ak ñàkk cee tàmbali ak xabdu ak sadlu jullit ñu waruñ ci tardé ndax lu ci ne rek sax na wër na kon ku nekk na nga nekk ca la nga nekk ñu bàyyi détails yi te dem ca l'essentiel li nga xam ne moo ñuy boole te moytu la ñuy bi nga xam ne moom la wax nag ci diggante wayjur ak doomam ba indi ci aaya alquraan ne wa qadaa rabbuka an laa taabudu illa iyaahu wa bilwalidayni ixsaana imma yabluganna indaka alkibaru ahaduhuma aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin wala tanharhumaa wa qul lahumaa qawlan kariman ci suratul israil su ma juumul mu ne doom na topp baayam topp waajuram déggal ko waaye suñu boroom wax na feneen ci suuratu Luqmaan in jahadaaka ala an tushrika bi maa laysa laka bi maa laysa laka bi ilmun fala tutihuma sa ñaari wayjur yooyu buñ la bëggee dugal ci loo xam ne xamoo ko bu leen ca topp loolu tamit <coughs> alxuraan wax na ko lu tax waxuloo ko danga ko waroon a waxaale kon doom day topp way juram ban way jur lañuy ñuy topp nan lañ koy toppee ak ci lan lañ koy topp loolooy wax ci te loolu dañ ko waroon a wax kon mu mel na wax ji dañ koo wate gaal genn boor soo ko melalee maanaam jënde say way jur ab jàmbur cëru way jur ak cërub leneen bokkul way jur hors catégorie la wala hors concurrence la ginnaaw bi nga xormaalee say wayjur ba noppi kay wuti nga leneen booleeg ñoom da nga wuti jabar nga wuti ay xarit am ay dëkkandoo ami collègue kenn ku ci ne ci ñoom am na cër bu mu am bu say wayjur amul ci yow waaye say wayjur ñoom kenn du leen méngaleeg dara bu taxawee seen cër leneen ngay wax nga ni xeex bii ku ci dee dem safara waaw xëy na yow yaa moom safara am ca sañ-sañ ak dogal waaye ki yàlla yónni woon ci ñun dey am na lu mu ñu wax loo xam ni moom wér na tënk te yow li nga wax moom amul cëslaay xadis bu jóge ci Saïd ibn Zeyd ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne man qutila duuna maalihi fa huwa shahid wa man qutila duuna ahlihi fa huwa shahid aw duuna damnihi fa huwa shahid aw duuna diinihi fa huwa shahid xadis boobu ci Tirmisi ngi nii moom laa xool mu yom ca doy ci sëkk waaye mi ngi ci ibnu maaja mi ngi ci yi mi ngi ci ahmad mu ne képp koo xam ne kii rey nañu la jël nañ sa bakkan ci sa alal shahid nga koo xam ne kii dañoo jël sa alal ci sa njaboot googu doon bëgg a faagaagal nga taxaw shahid nga jël sa bakkan képp koo xam ne jël nañ sa bakkan ci deret sàmm sa deret maanaam sa bakkan nga défendre sa bopp ba ñu rey la nee na shahid nga képp koo xam ne kii dañu laa jël sa bakkan ci sa diine nee na kookat shahid la kon kay shahid moom xaw ma ci buy dem safara te réew mi moo toll foo xam ne fii daanaka kon ku fi dee da ngay doon shahid parce que nag sonn nañu fu coono di yem suñu alal dem na ci anam yu bare fitnaal nañ ñu bunduxataal nañ ñu ci anam yu bare ba agg ba ci di déglu say conversation say communication ak yeneen yoo xam ne yii duma ko wax fii ndax boo ko toppee sax da ngay yóbbu fitu sa sa sa njaboot kon dofuñu xam nañu ni réew mi di doxee nga ne loolu du jihaad waaw ko bañ a tuddee yow mën ko bañ waaye ndokk ba nga xamee ni nag ñun jihaaduñu xeexaluñu lislaam it nag déedéet xeexaluñu lislaam de taxawaay bii am ci réew mii diirub at yi weesu loolu du xeexub lislaam xeexub ay citoyen la yu ñu galgati seeni xaq di fitnaal di bund mu am àq yoo xam dañ leen ko war a defal ñu koy revendiquer ñu dem ba xam ne mënuñu koo am ñuy wut lu soppi loolu kon xeex boobu ku ca dee xeexu deewoo ci jihaad yaaw ci yow la nekkul jihaad waaye ñi nga xam ne ñoom dañoo dee ci sàmm seen alal seen ngor yàlla xam na yonent bi xam na xeexaluñu lislaam nag waaye jihaad la de xeexaluñu lislaam ndax xeex bi ñu dul jullit a ngi ci biir anafsu ka tifli bi nga xam ne nag moom nga wax a anafsu ka tifli in tuhmilhu shabba ala xubbi ridaa'i wa in taftimhu yanfatimi contexte bi nga ko dugal moom it baaxul ndax la ba muy wax euh, euh, waykat ba ba muy wax nafsu al ammaara bi suu i lay wax loolu lay wax te it nag doon baax su fekkee ne dangaa bëgg mu leer foofu da ngay commencé ci man lii bi raddi jimaahin min gawaayatiha kama yuraddu jimaaxul xayli bi nujumi fala tarum bilmaasi kasra shahwatiha inna taama yuqawi shahwata nahini daal li soog a wax nag wa nafsu ka tifli in tuhmilhu shabba ala hubbi radaay wa in taftimhu yanfatimi fasrif hawaaha wa xaazir an tuwalliyahu inna alhawa ma tuwalla yaswi aw yaswi loolu nga waroon a indi lépp bu ko defee nga firil ko nit ñi ñu xam ni contexte bi nga ko dugal du boobu nga ne liy xew ci réew mi nag baaxul waaw mënta baax ci yow de liy xew mënul a baax ci yow waxoon naa ko fi ku sa lépp mat ku sa lépp mat jàmm ngay wut ku sa lépp mat jàmm ngay wut kuy añ di reer di ndékki say doom di jàng ñu leen di joxi bourse boo bëggee faju ñu dugal la avion yóbbu la bitim réew nga faju su weer dee ñu mosal la lëf lu mat say soxla bu baax a baax yow jàmm la dese waaye ku sa dara matul loolu mooy ay ci yow ku sa dara matul yow ci ay nga nekk kon loola cay génnee loolaay sab jàmm kon bi ñu bokk ay ambition mënuñoo bokk ambition bokkuñu ay ambition kon foofu ngeen nekk fi naan jàmm jàmm jàmm bu leen fi taalu ay waaw kay waaw kay ñun fi ne nii taalu ñu ay wut jàmm la ñu tolloo nga naan ku fi wut ku fi naan jox leen ma soo ko joxee ci boppam lay nekk boppam la lay won ah yaakaar naa ni yaa ngi gaaruwaale nag ki nga ki nga jàkkaar lool ki tax ngay wax ji yaa ngi koy gaaruwaale ndax moom moomu day laaj na dox na fi junniy junniy junniy kilomètre di dugg ko wàcc vidéo yaa ngi fi photo yaa ngi fi bi mu wët bi mu jotee yaa koy gaaruwaale de bi mu jotee boppam ak i mbokkam génn nañ ci ci coono ki jafe-jafe ñun kay ñooy ges ci biir di dee fan nag laa bëgg nga wax ma fu yàlla waxe ne bu kenn laaj foo ko gis fan nga ko gis yaakaar naa ne imaama googu nga nekk rekk nit ñi xamees na ni nga ci jote xam naa laajoo ko nag la yastawi lazina yaalamuuna wa lazina laa yaalamuuna dégg naa nga wax ko foofu du place moom i tamit nga ne bu ko jàng rek xam waaye yaakaar naa ne ñu nitee te xam la xew xam nañ ne jàng moo gën a yaakaaru xam que ñàkk jàng ki jàng moom lu bon bon ma ngay ma ngay xam dara waaye ki jàngul moom taxawagul pour xam dara kon ñaar yooyu yemuñu kon dangay xool bu baax ni ngay wax nga ni mag ñi daaw jàng lu dul jeex du xaaj loolu nga wax waaw nga ne dañ daan jàng lu yem rek lu yem yow moom xam naa ni dangaa jàkk jàng euh, gàttañ lu cim njàng moo tax nga bëgg xëy na laaj yéen loolu waaye tuumaal bi nga tuumaal mag ñi wuute naag li nit ñi di wax fii ci réew mii jàpp nañ ne mag ñooñu ñoo raw ñëpp ñoo raw fii raw feneen loolu la ñu wax donte nag loolu moom dese naa wér loolu dese naa wér waaye loolu nga xam ne moom la ñuy jiite wax moom ngeen weddi xëy xëy na waa réew mi dañ la ci tontu yi tamit mag ñu tuuti lañ jàngoon loolu nga wax jàngu ñu lu bari man nag li may laaj mooy li may laaj mooy ku jàng wuuti nan lay def bay dajale ay nit di leen jéem a xettali di leen jéem a yee di leen jéem a teg ci yoon ban problème ban problème lay am bu leen bëggee àggaleel seen yéene. kaddu gi nga wax nag ne nit day jomb waaye balay jomb day gëm yàlla loolu de ñépp la concerné waaye fii ñu toll nii tembe kooku nga jàkkaar loolu moom yaakaar naa ne waroon naa dégg kàddu googu nit balay jomb dafay gëm yàlla dégg naa la nag ci sa mujjante lu wax nga tàllal sa loxo ci kaw minbar bi nga taxaw di wax nañu ma jox loolu moom jàpp ma ne lu rafet la ci lislaam moom jox boo xam ne bii ci leneen la jëm ak lu mu mën a doon waroo ko woon a laajteel foofu ndax nit ñaa ngi koy joxe fa ko war a joxe ca loolu ngay wax su dee su ma nit ñi xam nañu ko xam nañ fañ ko war a def te ña ko fay def tàmbalee ci man nii di wax ak yow bu fee bu bu duggee ci kat anam boobu nag nga taxaw ne sama jàkka la xëy na nga wax ñu kañ lañu ko jaay wala kañ lañu ko may prochain vendredi di nga ci leeral loolu xam naa incha allah kon waxin bi ak autorité bi racket la gën a nuru li leen di wax nag man bokk li may wax mooy ngeen may ñu kenn xeexloowu leen xeexu leen kenn xaaru leen cib xeex li leen war mooy ñox seen genn rek toog di dégloo ba xam fu ñu jëm ak mi bu ngeen yaakaaree nag démagogie mooy fay safara naxante ragalante ginnaaw ak félatal ci lii nga xam ne moo jaroon a xool jàkk da di nax seen bopp ko defee ñu yemale kàddu fii ba beneen asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.